Thank <laughs> you. toujours dans votre acte du jour de ce 7 juin 2024 suñ fa jógee dañuy dem ci conseil des ministres bi nga xamante ni moo le mercredi 5 juin 2024 a ay nomination yu bare de xamante ni def nañ ko jëmale ko qui ci été li nga xamante attiré attention défenseur orthodoxie institutionnelle qui di été Fatou Ndiaye ingénieur en électronique système en de communication Mom le nommé coordinatrice de l'unité de coordination et de gestion des fonds de développement du service universel des télécommunications département muy FD Sud mu remplacer fa ki nga xamantene moy Mamadou Mamoun Ngom suñu sukkandikoo ci journal Echo, mi ngi qualifié dal li nga xamantene moy nomination Bobu Benen grosse bourde ndaxte Amon na fi benn bourde bo xamantene directeur ONFP bi nga xamantene dañ ko fa jëlé won dal di fa nommer directeur bu bess ci biir deuk communiqué bi dañu dugaloon ki nga xamantene moy Souleymane Soumaré la remplacé alors que Souleymane Soumaré jogé na fa depuis 2022, directeur bu bess bi fa nekkoon jamono juñ ko fay jëlé bourde la won ndaxte ñoñu dañ leen di nommé par arrêté ministériel c'est un mandat trois ans le renouvelable te koku de trois ans muy bourde benen bourde nomination bi nga F du e. irrégularité d'abord coordinateur bi nga xamanteni mo moo fofu ci FD Sud mom habituellement dañ koy nommé par arrêté ministériel ginnaw bi nga xamanteni décret lañu muju mujj jël pour nommer koku té lo xamanteni ni waruñu fon jaar ñu ko waroon nommé par arrêté ministériel mais décret lañ ko nommé muy benen bourde bo xamanteni def nañ ko ci li nga xamanteni moy conseil des ministres bi muy le deuxième bourde ginnaw nomination directeur ou ONFP bobu qui dit Mamadou Mamoun Ngom moo nekkoon ci poste bi depuis deux ans ginnaaw bu relevé ci fonction alors que mandat coordinateur bi ñetti at la renouvelable Défaut fa ñetti at ñi daal di koy relevé te liko waron waroon nommé muy arrêté ministériel ñu bàyyi fa arrêté ministériel bi dem jëli ji li nga décret président de la république li du journal Ekodal, mingi mi ngi noté malgré li nga xamante ni sérieux jëmale ko ci Mamadou Mamoun Ngom dafa probable que amul benyon yoon boo xamante ni mën objecté ko dal ci nomination bi nga xamante suñu ci journal bi dal mi ngi insisté bu baax nomination bi nga xamante ni def nañ ko ki nga xamante ne mooy Ndeye Fatou Ndiaye foofu ca FD Sud ki ko def daal mooy ki nga xamante ne mooy décret alors que arrêté ministériel moo koy def alors que kii mu remplacer di Mamadou Mamoun Ngom moom ci boppam mandam 3 ans la mandat bi ma toogul 3 ans ñu jëlee ko fa muy beneen bourde boo xamante ne ñu ngi koy ràññee bu baax a baax jëmale ko suñay institution moo tax ñii nga xamante ne dañuy xeex lépp lu jëm ci orthodoxie institutionnelle ñu ngi ciy jàmm baaraamu tuuma di alerte la population di alerte société civile di alerte ñi nga xamante ni ñoom ñooy dox ci wàllu yoon en tout cas ñi ngi gis ay bourde daal yoo xamante ni ñu ngi koy def au sommet de l'État Thank <laughs>